Sénégal ak mburu ak ceeb ku nek xam na ne euh, bon ñun mom lañuy dundé euh, quotidiennement voilà kon aujourd'hui suñu gisee né que ni euh, amna luñu wañi ci dundu gi di leen ci apprécier di leen ci gëna encourager tamit ñu gëna a gëstuwaat population yi. néew si doole ci mom ah lo leen mëna wañi rek wàññil leen ko parce que ko xamné de jour en jour lay daw lool dafa métti. dañuy bëgg lu neex askan bi bu ñu naxanteeg askan bi Macky Sall nii la doon naxanteeg askan bi ba mu indi lii sénégalais yi tool nañ foo xam ne doo leen naxanteeg ñoom da nga leen wax dëgg li am dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj buñ ñu naxanteeg ñu naan ñu dañuy wàññi dund bi dañuy wàññi dund bi pour bëgg lu neex sénégalais yi lañ leen sénégalais yi bàyyi ñu toog seen dal gouverner dal. mburu bi euh, ñetti dërëm yi day indi problème parce que ñaar dërëm da jënd ba pare borom bitik ne la aw ma ñaar dërëm bu ma lay delloo. kon juróom la lañu war a teggi ñu bàyyi fanweer yi parce que ñaar dërëm yi moom boo ko bàyyi foofu rek boo jëndee ñett dërëm juróom bi dikk ne la aw ma béykit nooy def wala aw ma ñaar dërëm bu ma lay jox donc da ngay obligé bàyyi fa sa ñaar dërëm au moins bu ñu teggee juróom yi bàyyi fanweer bi moo gën. weccetu sew yu ñu si def ay dërëm ak xaw ma ay ña ay juróom-ñett zaar yooyu day indi problème si diggante clients yi ak ñiy jaay parce que weccet amatul léegi maanaam bareetul quoi. xaw na am yàkkamti parce que pression bi ñu leen di kiilee ak ni leen ni leen falee tamit pression boobu ñoom tamit dañ koy xaw a dundaale donc te Sénégal euh, kii nii secteur boo jël rek affaire yi dafa urgent yu urgent moo am donc ñoom xam naa am na benn yàkkamte bi si nekk mais au fur et à mesure ñuy dem fii un deux ans peut-être euh, wàññi mën a baisse de prix yi mën na gën a abordable. du ma ko ko gëm lool ndax man maa gëmul wàññeeku ndax depuis ci Senghor maa ngi maa ngi gis politique mais wàññeeku maa ko gëmatul li ma waxoon ci bi ñuy fal Macky Sall rek ñu ne bu yéegee dinañu wàññil ma ne leen bu fekkee loolu mooy tax ngeen koy sànnil carte bu yeboo ngeen téye seen carte parce que wàññeeku dootul mën a am parce que ñun ñoo ngi yokk àdduna baa ngi yokk population bi mu ngi yokk mënuñoo am wàññeeku chaque jour bu ñu wàññee tey dërëm yi suba dinañ ci yokkaat ñaar dërëm ndax dama koy jëlee ci sama bopp man liggéeykat laa damay daan sama doole feyeeku ma weer comme ça li may liggéey nii di soow ma jëloon tey liitaru soow jënde ko 1000 francs ma ñëw nga ne ma naa ko jaayewaat 1000 francs est ce que dinaa ko nangu loolu moo tax man gëw ma ndax wàññeeku dina mën a am mënuñoo dugg tey ne suba dinañ wàññi dund bi bu ñu naxanteeg ñun ñu kenn nekkatu fi xale ñun ñëpp ay mag lañ léegi dafa teel bu ñu naxante li ñuy souhaité mooy mu jëm kanam comme c'est un premier pas waaw j'ai espoir que bu ñu demee ba ci kanam dana gën a wàññeeku. waxu politique la nañ jël politique bi teg ko fële ñun ñëpp ñu liggéey te Sénégal moo gën ñuy naxante naxante moo ñu yóbbu moo ñu andi lii ñu am nii yëpp bu ñu naxantee ti maa leen di ñaan ñoom ñu bañ a tas yaakaar ñun xuloo nañ ndax ñoom xeex nañ ndax ñoom tey yàlla ñëw def leen ñu yore nguur bi ngir yàlla yàlla buñ tas yaakaar doomu aadama yi man loo rek laa leen di ñaan. te yàlla jàppale leen lu ñu bëgg a liggéey ci réew mi rek yàlla jàppale la ñu liggéey ci réew mën na nekk seen xalaat nag mën na nekk seen yéene mën nañ ko bëgg mais du yomb ñoo ngi xaar nag wàññeeku boobu mais man bu doon bu doon nekki man ci sama xalaat nit ñi dañ leen di muñal a muñal a muñal ba ci kanam ndax yow ko amagul at amagul sax juróomi weer nga ne nañu wàññi nañu wàññi mais du yombe noonu mënta yomb léegi nag ñun ñoo war a mën a xaal te ñu nangoo liggéey. te nangoo daan suñu doole te ñu bàyyi waxu politique bu ñu bu ñu politiquee ba politique passé wote nañu sànni nañu carte nañu dem liggéey te bàyyi waxu politique. bu leen askan bi tegee pression wala population bi teg leen pression nañ ko jaarale ci yoon def ko ndànk mu jàll ci mu sotti ci ndànk moo gën. mar naan bu mu leen tax naan petit. ñoo ngi déglu population yi ñoo ngi xam seen li leen li leen neex ak li leen li liñ bëgg ñu koy def.

xamna peut-être dafa euh, dafa nekk lu pragmatique dañoo nekkul ñu pragmatique rek parce que commission bobu non warna am parce que so defee né ni da nga wàññi ki ni sut nga ne wax ministre des commerces donc ñom lool non surtout ñom ño ci wara gëna am commission buñ mëna tek di pour mëna contrôler euh, vendeurs yi ak tamit ñi jënd ak ñi jaay di xool ndax loolu noonu ñoo ngi koy jëfé bu jaré ñu dem assemblée voter ko voter ko parce que légui prix mom dañ koy mëna respecter fi ba ay 2030 lii dañ ko war a respecté waaw amatul ay nii ak ay nee lu neex waaye jaay nit di di arnaquer nit yi nit ñi sol nañ sol nañ trop. Euh, gouvernement moom bu tegee ay mbir moom normalement dañ koy war a topp. mais tamit war nañu xool si kaw toi si kaw ñu bañ a xool détaillants yi directement parce que yenn saa détaillants yi euh, dañuy dañuy wax ne wàññi nañ fekk wàññiwuñu si magasin yi loolu tam war nañ ko si xool. waaw day indi jafe-jafe parce que boo jëndee tamit doo bëgg a di jaay di perte. du lu ñu mën lu ñu leen teg kese la lu ñu leen puus rek la defal defal defal mujj def rek moo ciy mujj fekk li ngay def mënagoo ko mënaguñ ko dafa teel mënagul mën gul nekk. man ci sama bopp man damaa gëmul wàññeeku man maa gëmul wàññeeku ci àddina yokku laa gën a gëm. dañuy bëgg lu neex askan bi bu ñu naxanteeg askan bi Macky Sall nii la doon naxanteeg askan bi ba mu andi lii. sénégalais yi tool nañ foo xam ne doo leen naxanteeg ñoom danga leen wax dëgg li am dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj buñ ñu naxanteek ñu naan ñu dañuy wàññi dund bi dañuy wàññi dund bi pour bëgg lu neex sénégalais yi lañ leen sénégalais yi bàyyi ñu toog ak seen dal gouverner dal